amis auditeurs de la rajo Rewmi FM ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal ci teewlu ak euh, topp ngeen ñi topp ci la rajo du bonheur di nuyu tam au passage ñi nga xamante ni ñooy seetaan la chaîne du peuple Rewmi TV tey ñu ngi fii ci Fass ba tey dans le cadre de votre émission Rewmi People ñu ngi seet si tonto Pape euh, du groupe Pape Cheikh ñu bàyyi ko mu nuyu ak ñi nga xamante ni ñoo koy déglu salaamaaleykum. maaleykum salaam maa ngi nuyu auditeurs ak auditrices yu Rewmi réew mi TV télé bon di am mbégte lool ak réew mi effet waaw di am di am mbégte lool. Euh, recevoir leen tey fii si kër gi uh-huh. ana sa binom bi tonto tonto Pape. Cheikh tonton ah, Cheikh moom xam naa ne dafa dafa bougé. Uh-huh. mais mu ngi fi uh-huh. waaw. d'habitude vous passez beaucoup de temps ensemble wala. waaw d'habitude nag bu ñuy musicalement on on pense dañuy toog lu nekk lu yàgg mais des fois. bon moom comme des fois day nekk fii wala mu nekk fële bon on la l'habitude loolu depuis bi ñu nekk xale la ba léegi. Mhm. le groupe Abbé Cheikh ñu bëri dañuy rêver xam fan fan la euh, groupe bi sokkee ko rencontre bi euh, déjà yéen ñaar fan ngeen xamante. waaw groupe Abbé Cheikh waa ñun bi ñu nekk xale man ak Cheikh la ñu xamante Kaolack. Mhm. boobu am nañu 9 ans 10 ans. su la ñu tàmbalee di xamante ñoo ñoo commencé ndoo musique ñoo. commencé ndoo benn orchestre ñoo maanaam mun naa la Cheikh Pape Cheikh ñu bari xamuñu sax Pape nu mu sant. Mhm. bari xamuñu Cheikh ay ay xarit lañu. yàlla moo def loolu moo tax euh, euh, lu ñu am nag xëy na musique may ñu ko mais xaritoo moo ñu ko may. Mhm. parce que moo xam nga ñaar ñuy ànd bu ñu déggoo rek ci li ñuy def yàlla da ciy def la xam. musique musicalement moo leen boole wala y une relation avant wala vous avez senti la euh, la musique euh, la musique pour faire euh, benn team li xale yi naan team wala relation première bi c'est quoi l'amitié hmm. relation maag Cheikh hmm. musique boole wuñu musique daf ñoo dab ok boo xool sax man bi may def musique fekk na maa ngi ñëw di football Cheikh bi muy bi muy nekk vraiment ci musique bi moom mu ngi dem université di jàngi kon musique daf ñoo dab boobu ñoo bokk di nekk après nag ñu jàng boobu ñaata at ngeen am bi ñuy def musique commencé ko dëgg dëgg dëgg man bi may commencé Cheikh ma ko njëkk a commencé musique parce que maa ngi doon def ay chorale mhm. xam naa à peu près 12 ans 13 ans 14 maa ngi def chorale mhm. mais nag Cheikh bi ñu ñëwee fii nag ba Dakar ba ñëw Dakar nag ñu fi ñoo xam naa boobu ñu war a nekk ay 16 ans 17 ans 18 ans dañu war a commencer musique bi nag. vingt ans yooyu côté boobu am. d'accord alors euh, seen euh, fi nga xamante ni moom ngeen sokkeekoo ak euh, fi nga xamante ni fa ngeen cosaanoo mooy Kaolack. Mm-hmm. est-ce que c'est une région musicale est-ce que ci wàllum taarix dafa nekk diwaan boo xamante ni ku fa dëkk wala nga bàyyeekoo fa inéluctablement da nga def war a mu nga war a def musique wala quelle est l'histoire de cette région avec de la musique. waaw moom sànq rek am na ko ma koy wax man ne ko Kaolack dafa nekk genre brassage. boo mhm. fa nekkee il faut culturellement mu am du la topp. boo ko xoolee même sport mbedd yi danoo yaatu euh, quartier yi ay couleur ay séeréer ay bambara ay saraxulee ñun ñoo dëkkoon parce que à chaque fois am na benn événement boo xam ne nii ba ilaa ci benn la ci ñooñu. Mhm. joolaa yaa ngi nekk fii séeréer si yaa ngi nekk fii bambara yaa ngi nekk fii loolu boo ci boo ci boo ci màggee ci noonu dafa am lu mu lay dafa dina am jeexital ci yow. Mhm. carrément léegi nag ñun dañoo bëggoon musique. Mhm. di déglu musique. Mhm. léegi nag ak loolu nga xam ne dafa bokk si jeexital si ñun xëy na moo moo moo moo réveillé lii. nekk tey jii si ñun. ban année concrètement ngeen révélé wu sur la scène euh, musicale sénégalaise. waaw ñun ñun defe naa Sénégal bi ñuy bi ñuy xam Pape Cheikh boobu fekk na ñu bi ñuy génnee euh, sunu premier album. mooy bi def ay yaatal géew. ay soññi yooyu moo tax ñu xam Sénégal waaye boobu balaa ñu koy pare balaa ñu egg foofu def nañu ay à peu près dix ans. Mhm. nekk di jouer ci ay orchestre ay variété mhm. nekk ñu Cheikh nekk Mbour ma nekk Fimela léeg-léeg ma fekk ko mbuur léeg-léeg ma fekk ma Fimela formé nañ ci orchestre tuddee ko Samta Muna nekk ci àll bi def ay tournée euh, jàng yenn culture yi. Mhm. dem xoslu daal ci ci àll bi man man man personnellement avant may ñëwaat Dakar def naa dix ans ci àll bi. village yoo xam ne nii amuloon sax courant. loo fa doon def. musique ñaw football. Mhm. waaw d'accord ci ñetti métiers yooyu nga wax yëpp ban moo la ci gënal. non yëpp ma gënal mais dafa am yoo xam ne da la fi xaar xam nga xam nga xëy na tailleur mun na la fee xaar mais football mun na la parce que loolu ay ay football koy def. Mhm. musique loolu la boo xam ne mënut a wujjee ci lu bari ci nit. Mhm. soo ko xasee bu xasee ba dugg euh, dama daan am ñaw yoo xam dañ ma ko daan jox yu bari. mais suñ ma ooyee demal musique yi non seulement moom laa bëggoon mais mais j'ai gagné mieux que ci ñaw bi may ñaw nga xam ni bon da ngay pédale gañ gañi benn somme mais métier la boo xam ne ni euh, li ma gën a neex sama àdduna mooy jàngal naa ko nit ba mu ngi ci mu ngi ciy gagné àdduna. ah am nga ci qualification professionnelle. waaw jàngal naa jàng naa ñaw ba jàngal koo xam ne boo demee dëkk ba bokk na ci ñi dàq ñëw ci côté ba mu nekk. waaw waaw léegi nag mënatuma sama bëti neexatul. Mhm. boo boo kiiyee ñu ne la prestation yaa ngi nii musique baa ngi nii. Mhm. bari na daal yoo xam ne nii bon. musique dafa xaw a doy waar quoi dafa fiir. Mhm. comme ni ñu ko waxee waaw. tonto euh, tonto euh, ñu bëri euh, mën naa wax ni sax ñëpp ñoo leen di bëggee ñoo leen bëgg souvent bu may déglu musique Pape Cheikh sama yaay danaa ma lii du musique gone de mais ngeen bokk ci ñun mais à un certain moment déggatuñ leen woon. Euh, qu'est-ce qui était dû à cette absence. waaw <laughs> loolu dañ koy faral di dégg ah léeg-léeg ñu ne ma yéen da ngeen absent. xam mhm. nga déggatuñu leen mais nous on se dit que nous je crois que mii moo gën si mhm. parce que man je me dis que ñun li ñuy joué. bariwul mhm. musicien bi Sénégal nga wax la ko ñi xam dëgg laa wax de. nga xam ñu génn di dem ci xam musicien yi nekk ci ci ci ci kii. bari nag musicien yu ba xam nga ñun bokk nekkuñu génération xale yi ay mag lañu. mais suñu moroom yi ñuy àndal di li ñuy joué ñoom duñ ko joué. Mhm. place yu mag yi yi ñuy joué fii ay dîner de gala yeeg cocktail yeeg yooyu luñ ñu ciy bariwul fii Sénégal ko koy joué. Mhm. te kon loolu moom mooy. loolu mooy pour ñu loolu mooy l' bi nga xam waaw la toile dans la douce. lu ñu bëgg daf mhm. lu ñu olof yi di wax naan boobu rek tey métti. bu tuuti te am jàmm ko gën a ñun coow lu bari di xëy na def ñii buñ ci duggee sax mu yàqule cat baaxul. <laughs> waaw d' accord nañu xam euh, pour ñi nga xamante ne ay novice lañ xamuñu. tey jii boo ñu doon wax particularité musique folk lan nga ñuy wax. waaw musique folk moom li la ci euh, particularité am dëgg ñu ko xam dëgg xam nañu musique folk message la message la. Mhm. il faut que nga concentré wu ci si message bi ngay def ñu koy déglu boo gisee ñu ne la ah lii du musique gu gone lii du musique gu tel lii du musique gu tel fekk na. Mhm. dafa am euh, dafa am nit ñi fu ñuy toog di déglu di di déglu lu leen. lu leen amal njariñ lu leen di yee ñun foofu moom man foofu lañ teg sunu loxo parce que man je me dis man ku jël sama musique di ko déglu wala ku musique ba may déglu musique boobu war na ma andil dara war na ma apporter lu ma amal njariñ ci sens bu ne yàggul y'a deux jours y'a trois jours y'a une personne qui m'a appelé di ma wax ne dafa am benn dama am benn sa morceau bu ma doon déglu ba pare ma ne waa ji daf ma tooñ mais baal naa ko. ma mhm. mu ne ma morceau bi ngay wax jéggale te yàlla tax ma ne ko ah bon mu ne ma waaw mën ne ko man loolu loolu lañ ci bëgg. Mhm. tey jii bu fekkee nit tooñ ne la nga dem ak am capacité mën ko jéggal au moins mun naa wax sax ni xëy na loolu bokk na ci li la influencé ba nga jéggal ko kon ñu ngi sant yàlla ci loolu loolu ñuy def noonu. Mhm. kon moo musique bi ñu bëgg loolu lañ muy faj musique bi ñu koy def euh, bi ñu def yaatal géew au Sénégal. Mhm. ça a tempéré au moins moment boobu sénégalais yi. foogoon nañ ne ak élection yi dëkk bi day tas. Mhm. mais musique boobu am na lu mu tempéré ci ci ci ci ci ci ardeur. waaw loolu nag moo tax ñun fi ñuy fi ñuy tibbee aussi dañuy bëgg toujours nit ñi bu ñu dégloo ne ah am na njëriñ. Mhm. dañuy ah ndax musique moom dafa bari accam. Mhm. alors tey jii consommation genre musical boobu boo ci doon indi sa appréciation lan lay doon est-ce que degré bi mu toll tey neex na la wala dal na sa xel. non xam nga àdduna day dox. ak euh, kii bu bees bi génn léegi nga xam ne da ngay defar sa benn morso rek. Mm-hmm. loolu ko si si jaay bi ah. waaw waaw non même bim bim xam nga sénégalais moom doo wax ne li li dara baaxul. Mm-hmm. parce que kenn ku nekk am na loo bëgg. am na ñenn ñu nekk am na lu ñu bëggal seen bopp loolu doo ko doo ma ko weddi. Mm-hmm. musique bi moom bu am na ñoo xam ne tey jii boo leen sax duñ duñ déglu musique bëgguñu ko. am ñoo xam ne musique bi ñuy déglu yow boo leen leen diw mooy déglu musique bi da nga naan non. da nga dul nekk. mais kenn ku nekk am na loolu mais respecté keneen ku nekk li nga nekk. Mhm. mais musique baa ngi dox boo parvenir xam yow li nga am ak fi nga koy yóbbu. parce que ça dépend ci marchandise boo xam ne nii nga ne bii marchandise mooy marchandise bi ñii ñoo koy consommer. Mhm. naa fexe ba ñooñu jot ko. Mhm. ñii sonn nag mooy ñi am marchandise boo xam ne nii dañ koy bëgg a jaay foo xam ne du fa mën a jaar. loolu mooy problème bi. tey jii wàllum euh, musique sénégalaise est-ce que am na ci loo xamante ni. lu ci nekk safaan la wala loo xamante ne luñ ci war dindi la sànni ko maanaam lu ci médiocre euh, l'œil du l'œil de l'expert ci musique ah, sénégalaise non xam nga Sénégal <laughs> uh-huh. dañuy wax ci musique uh-huh. ah, en bi càng-càng déglu waaw ah, kenn ku nekk yow yaay wax sa bopp parce que tey ji su ma taxoon fi toog di seetaan samay télé bopp samay doom toog xam nga. Mhm. am na image yoo xam ne du ma bëgg suma doom gis ko. Mhm. loolu moom man la concerné ak sama njaboot. wax ak dindi leen ko moom comme film yi jaar rek da nga ne bii film bëgguma ko. Mhm. bu fekkee ne musique bi loolu foofu la tendance bi foofu la jëm ma yar sama njaboot. ne leen téye leen ko parce que kenn ku ne xam nga lu baax nag ak lu bon. ak luy defar ak lu yàq. loolu moom defe naa benn benn jugement la boo xam ne nii ñun amoon nañ chance bi ñu nekkee xale amoon na amoon na critique soo defee benn musique bu baaxul day am ñoo xam dañuy toog déglu ko ne la eh, lii du jàll. ndax lii mun na def nii xale yi koy déglu ëllëg mun na leen jural lii. boobu amoon na loolu mais léegi amul da ngay génne sa musique léegi tey ji soo génnoon sa benn musique ma ne la ah madame Ndiaye sa kii bi doxul de nga dégg sa benn mbokk may woo fële naan ma xam nga da ngay génne sa benn morceau sax benn sa benn mbokk génne fee naan ah xamoon naa ne di di nga baax la sa liggéey ndey des fois moo tax yooyu nañu ko nañu ko ne ñukk bàyyil ko gaa yooyu foofu. Mhm. ñu continuer su suñu yoon. Mhm. waaw. d'accord alors euh, Toto votre groupe euh, bëgg nañoo xam tey jii quel est le secret de votre réussite parce que gis nañ fi groupe yoo xamante ni constitué nañ ko euh, mu dem ba à un certain moment ñu ñu off xuloo am tey jii Pape et Cheikh quel est leur sec quel est le secret de leur entente. waaw gis nga ànd ànd bi ñuy ànd. man ak Cheikh ak ànd bi ñuy ànd ak group bi affaire famille la. Mm-hmm. vous non ay xarit lañu mais dama la bëgg jox exemple. Mm-hmm. su nga group Pape Cheikh du groupe boo xam ne orchestre boo dem soirée boo dem fekk fa musicien Pape Cheikh moo fay joué. Mm-hmm. xam nga lu ko def. parce que musique pa musicien Pape Cheikh Pape leen di fay. musicien Pape Cheikh man awuma ay ñu ngi koy waxee ay mercenaires. Mhm. pendant cinq six ans dama jël ay xale yoo ñoo xam ne ñooy ànd. ñuy mhm. liggéey te lu ñu am bokk mhm. loolu moo tax ñoom musique Pape Cheikh du sax man ak Cheikh mais affaire de famille la. ñoom seen bopp ñooy defar seen i morceau ñëw andi ñëw ci man ne ma grand dama bëgg nga woy morceau bi. parce que xam nañ ni njëriñu njëriñu Pape Cheikh njëriñu ñëpp la amul affaire star amul ay may p may deux amu fi. ñun dañoo on travaille pour que ñëpp jëriñu moo tax groupe Pape Cheikh loolu ñuy wax noonu secret boobu loolu la mhm. booy ànd ak ay nit ñi ngay liggéey da war a ñëpp dañoo war a am man su ma ñëwee fii tëdd di nelaw am dépense ñoom bu ñu tëddee war nañu bu ñu nelaw xandax parce que am nañ bàyyi nañ dépense mhm. c'est ce que jàppante mës na am seen diggante ci wàllum musique bi nga bind peut-être il, il n'a pas apprécié d'accordul ngeen xaw a am xëxante ni wala <laughs> waaw mais je crois pas ñun on règle pas ça comme ça suñu problème. mais il est arrivé une fois. yàlla xam na ne mosuma gis loolu. billaahi. Mhm. xam nga lu tax. ñun danoo wax ne balaa ñoo def dara nañ nañ si jubóo mosuñoo werante ci loolu. Mhm. bu affaire ñëwee démocratie bi mooy que buñ ko déglu kenn ku nekk dañuy wax sa feeling ba nga si yëkk. Mhm. bu fekkee ci côté texte bi buñ ko bindee ba waxtaanee ko. nañ la taxi bi lii lañ lii mooy sens bi fii lañ ko jëmale. dinaa gars yi nangul man loolu mooy sama wàccaay. d'habitude kan mooy bind ci yéen ñaar. man dinaay bind am na ñeneen ñuy bind di ma jox. Mhm. mais li ci ëpp quatre-vingt pour cent wala quatre-vingt-dix pour cent yi man maa koy bind. Mhm. mais li ci am solo mooy bu bu xasee ba pare rek damay wax Cheikh moom mu ngi ci musique bi. Mhm. moom il est ëpp plus encore si loolu. mu composé ñu teg commencé ko waxtaanee arrangé. yenn musiciens yi bu ñu ñëwee ni ma ni ma mënee. changé wax ci mooy lañ mën a wax wax ji boo ko waxee woon lii. parce que on prend le temps pour defar ko. parce que mën nañ xam nga li gën a garaaw mooy nga yàkkamte affaire génne ko rek ah lii waroon naa ko defee nii on prend vraiment le temps qu'il faut travailler ko en famille. buñ ko paree répété ko ba ñëpp yëg ko. nga ne ah grand kii war nañ ko mën a nañ ko nañ ko waxtaanee lañ koy njëkk a wax. buñ ko waxtaanee ba jàpp ko nag affaire bi doo ko am beneen beneen dimension ñu la koy génne. du bu ñu àndee dina muy ànd yëpp am na ko ñii ñii ne ah ah xaw a sax mais même man dina am yoo xam ne maa ngi koy def du ma neex. Mhm. mais damay naa mais man nangu naa. Mhm. parce que nag démocratie dafa am ci yëf. Mhm. ñii ñoo ëppale loolu nañ ko def. nañ ko def. ñu def ko. mais après damay xool ne ba ma demee ba ci biir ma ne mais mais ñi ñoo waxoon dëgg. man ba man fi ma jàppoon xëy na sama dëgër bopp moo tax. Euh, ma ma téye woon foofu ma bàyyi. ak comme ñoom ñeneen a. Mm. alors ban moment ngeen dund lu metti ci seen ànd bi des difficultés liées au à votre métier. waaw loolu nag ñu ngi ko dund moment bi ñuy commencé di musique bëggoon am produit. xam nga produit production léegi la yomb bu njëkk da am cassette am ko ñun moment bi ñuy def musique. dañ doon jouer ci boîte yi pour ñuy jouer sax dañuy wax ndax am ngeen cassette. Mhm. ñu ne amuñu buñ mosaa jouer ba pare. dañ daan jógee ville trin Tringa. boîte de nuit la woon. boîte de nuit bu nekk Tringa bu bu bu bu Comté. Mhm. dañuy jóge foofu doxee fa ba Colobane. Mhm. mais suñu plaisir moo doon jàpp joué nañu. Mhm. mais en certain moment nga xam ne da ngay defar say morceau nga ñëw si diw nga ne ko ah Talla damaa bëggoon nga nga nga produire ma. Talla Diagne waaw. ñu ne mu ne la ah non lii mënuma ko produire ndax musique bii moom dafa sell dafa sedd ba mu ëpp. yooyu jaar nañ ci. Uh-huh. moo tax jour bi ñu njëkkee gis euh, euh, sunu kaset. Uh-huh. ñu gis pochette bi ñu def ci Pape Cheikh. Uh-huh. bokkoon na ci li bu mel ni soulagement bu bu rëy. parce que moment content. très content <laughs> parce que on a attendu enregistré nañu sunu kaset. 80 99 mu génn 2001. cela veut dire que res toog na deux ans yoo xam ne ni ñu ngi koy xaar. mu ngi mel ni ku xaar doomam muy waaj a judd mu toog deux ans di ko xaar. moment bi mu génnee saa xam nga waaw. Oh, c'est extraordinaire. un soulagement. waaw alors ñu bëri on touche du bois nee ñu groupe Pape Cheikh ñoo gën a riche ci artistes yi c'est vrai. waaw mën nañu wax ñoo fi gën a riche xam nga lu tax ñu wax loolu parce que dañoo am ay dañoo am public bu public bu select. financièrement. non financièrement moom non. <laughs> Ah non non non. xam nga sant yàlla weesul xam nga nit aussi du bu la yàlla suturaale. Mhm. du ñun li ñu am rek la sunu morom yi am. Mhm. mais yàlla xam na ne ñu ngi sant yàlla. ngi sant yàlla di ko di ko dollee li olof yi naan cant mooy tax yàlla dolli la ñu ngi sant suñu borom bu baax a baax a baax. waaw àdduna nag ku fi nekk problème di ko am. et lan mooy résoudre ko mooy que yow c'est un combat. et on toujours des combattants ci musique bi ñuy def ak ci lépp loo xam ne entamé nañ ko dans la bi parce que fii àdduna dafa amul luñ fiy maye. Mhm. lépp dañ koy xeex. Mhm. waaw mhm. lépp lañ koy xeex bu fi kenn yaakaar ne da ngay ñëw rek ñu tegal la ko sur le plat amatul. waaw faut se xeex boobu nag nit ñi mais yaay suturaal sa bopp. parce que nit ñi bu ñu demee am nga alal alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax a baax. yàlla sant yàgg. waaw amis auditeurs je vous rappelle que nous sommes avec euh, tonton euh, Pape euh, du groupe Pape Cher alors tonton on on on sent et on on vous entend beaucoup critiquer la SODAV quel est euh, euh, ce que vous reprochez à la SODAV. waaw li ñuy reprocher SODAV mooy que gestion bi moo normal gestion SODAV. Mhm. dañoo bokkoon benn bureau bu ñu doon wax bureau droit d'auteur ñu ne ñu bureau droit dañ ko fi jëlee bu ñu jëlee bureau droit d'auteur fii au Sénégal. Mm-hmm. dañ fi indi SODAV SODAV na bari na ñu ko ŋànk te nekk fa si biir dañ doon wax ne ku daan am benn léegi lu ma la wax fukk ngay am SODAV ñëwee. Mm-hmm. SODAV bi mu ñëwee fekk. bàyyi woon na fi euh, BSDA biñ ñu moo fi jóge booba danga daan am dañ leen wax danga daan añ di reer di ndékki maanaam danga doon feeku ñaari yoon ba ñetti yoon ci mo année bi léegi SODAV bi mu ñëwee ba léegi benn yoon lañuy ñuy fayee ko ñu toog année yi quatre ans cinq ans yëpp ñu ne mais lii ça ça c'est pas normal te yéen yéen ñu waxoon ne bu ngeen ñëwee. ku daan am benn fukk ngeen am ñun waxatuñu ñun waxatuñu léegi fukk yi xam nga lu ñu wax ñett yi ñu doon am nañu ko delloo. mooy mm-hmm. ñun daan fayoo ko yoon si année bi nañu delloo ko ñu xam ko léegi waxuma la añ bi waxuma la reer bi mais ndekki li sax xamoo ban heure nga koy def. Mm-hmm. xamuñu fi mu ne nii kañ la ñuy fayoo. Mm-hmm. loolu la moo tax ñu ne doxul. bi loolu amee. ñu commencé di ko kaas ma yëkkati sama kàddu dem seeti Mame ñu waxtaanee ko ma ma maam góor man man émission laa njëkk def ci benn télé mu mu dégg ko wax ko moo dem fa wax ak moom ma ne ko maam maam góor man ne combat bi may combat utuma ci lenn dama bëggoon ñu wax ñu waxtaanee ko. Mhm. waaw waaw. waaw ñu waxtaanee ko. léegi dama bëggoon ñu ñu xool naka la ñuy def ba Sodav delluwaat réglé waat lii ñuy def parce que du yoon bi ñu ko waxee ñu def conférence de presse. waxtaan ñu dem fekk ministre bi woolu ñu ñu dem fa ministre bi ñu wooloo bi ñu fa demee dañoo ñëw toog fekk waa SODAV yëpp toog cela signifie beaucoup de choses yow bu fekkee dañ la oo rek nga ñëw fekk fa ñeneen ñi nga war a li ngay war a waxat ñooñu bi ñu commencé ministre bi non oh non yéen ak comme ay rebelle ne ko noonu li ñu fi indi mooy gestion SODAV bi moo ñu fi andi non yéen génne dem si journaux yi sax génn dem ci benn télé génne sama samay répartition deux mois après mu dem octobre mu dem SODAV moom ci boppam ni leen xaay leen ma xool si répartition moom ci boppam moom moo njëkk a wax ne yéen li ngeen di répartir nii c'est pas normal c'est inadmissible. Mm-hmm. loolu mooy lan naka ngay jëlee euh, collecté un milliard. Mm-hmm. jël sept cent mille yow def ko ci say fonctionnement trois cent mille yi nga séddale ko loolu amul fenn ci àdduna. Mm-hmm. moom ci boppam moo ko njëkk a déploré ñu ne ko ñun lii li nga doon bañ nii li nga wax nii moo ñu taxoon toog foofu keroog comme gis nga ko kon baax na léegi léegi nag waaw léegi nag dama bëgg yow eh, parce que war na ko faj parce que boo ne lii baaxul te ngay ministre de la culture yow yaa war a faj loolu mm-hmm. SODAV am na fa ay ay ay ay ay trafic de quittance xamuñu fu mu mujj. beneen affaire bi mooy que yi SODAV doon def dafa wucc ba Sénégal équipe nationale de football mu woote ñu dajale gars yi xam nga musiciens yi boo amul carte invitation ay boo amul carton d' invitation doo ñëw man joxuñu ma carton d' invitation. pour ñu ñu teew ci ci ci seen élection boobu. léegi man ñun dañuy wax ni ñun ci ban ci la ñu nekk. Mhm. ñun wax ñun. ña ñun ban ban societé moo ñu géré. Mhm. yow yaa moom so yaa moom siif dañ la ci invité. Mhm. nga ñëw ñu ne jël nañ bureau bi équipe nationale buy joué ñu war a def lu toll ni sodaaf ñu jël seen i ñu 36 membres. Mhm. sodaaf depuis mu ñëw ba léegi amuñu carte membre ren la ñuy doog bi ñu commencé wax wax ju bari ji nii. semaine bii passé lañ ne carte membre yi pare na. carte membre yooyu ñan lañ koy jox. beneen bi ñu ne SODAV 9000 personnes la SODAV 8000 personnes la SODAV 6000 personnes la ñu ne ok xaalis bi ñëw ñoom ñoo koy séddale ñu ne ok. égalitaire la wala lu mu ko mën a tuddee ñu ne leen garaawul jël leen xaalis bi ngeen séddale ko. Mhm. problème mu sa xaalis bi du xaalis xam nga la. Mhm. nee ngeen SODAV 7000 personnes la 6000 mill la 8000 personnes la léegi jox leen ñu. les ayants droit ñu xam 8000 personnes maanaam ñoo waaw ñu xam ñan la. Uh-huh. ñun li ñu a xam mooy ñi ñuy fay ñan ñan la. Uh-huh. parce que tey jii man suma kër bàyyi la Sodav. Uh-huh. bu ñu ñëw ci kër bàyyi jàmbur dafa dugg di wax ne 20000 personnes war naa xam samay doomu bàyyi xanaa. d'accord kon loolu mooy le problème. la problème le fi mu ne ñuy wax ne ci xaalis bi amu ci. xam nga ni def. nañ ko séddale léegi ñun ñu leen laaj ne leen eh, les ayants droit yi nga xam ne ñoom ngeen ñoom ngeen di fay. nañ xam ñaata la. parce que nous danoo ñaaw njort ne dafa am ay fictif. ah oui oui. moom bi mu ñëwee ba léegi mu ngi bàkkoo ni elle fait dans la transparence tey jii yow buñ la doon wax nga comparer BSDA ak Sodav. ci wàllum gestion boole ñaar ñoom. ah oui et pourquoi pas. pourtant Sodav chaque jour mu voilà mu. tardé mu tardé mu waaw loolu la ñuy def. mu tardé wuñ que sa gestion est transparente les artistes. ñu jox seen ay droits c'est pas vrai loolu ñu def loolu ñu. loolu c'est pas vrai mm-hmm. c'est pas vrai amul transparence ah oui amu ko mm-hmm. yàpp léegi huit cent mille ñu ñuy récolté six cinq cent mille cinq cent mille yi lañ lañ lañ jël seen seen seen place am na si ñoo xam ne si biir si seen aide ñoom lañ ko jox si si si si si trente yi ñoom lañ dimbalante mm-hmm. mu ngi fi waxuñu ba léegi kenn ku nekk ñaata la jël mais naka ngay jëlee huit cent millions personnes jàmbur mbooloo bokk ko nga nga jël 500 millions yi. ni moom ngay def fonctionnement. loué ay kër fii recruter ay nit di def ay séminaire ba pare bu wax ne ban transparence xanaa c'est entre ñoom lay prendre c'est c'est nañu bàyyi lobbying boobu ñuy def bu ñu paree dem ci presse bi. Mm-hmm. mais tonton tey jii c'est quoi la solution est-ce que kon Sodav waruñ ko woon jox artistes yi ñoom si wàllu boppam. waaw fa ay nit. yow nag yow nag yow léegi yow yow dinaa la ñaanal monsieur gën laa xoolal. ñu copte fa ay nit. waaw ñu toogal seen bopp parce que dafa mel ni artistes yi tamit dañoo naqaree gérer. waaw ah, loolu d'accord na artistes naqaree ñuy gérer. Mhm. Sodav. Euh, li ñuy percevoir li ñuy jëlee ci xaalis li ñuy collecté. 80 mhm. pour cent ay musiciens ñoo ko musique moo ko fay joxe. te pratiquement boo xoolee ñi nekk ci représentatif foofu motuñu trop motuñu quatre. musique bu ci la ñu toll quatre musiciens yi ñu xam. dégg li ma la xaalis bi ñuy collecté quatre vingt pour cent yi wala quatre vingt cent yi musique moo ko fay dugal. te musiciens yi ñu fa def ñuy collecté musiciens yi ñu fa jël si motuñu quatre. te ñoom ñoo ko ñoo toog seen dil andi andi ay andi seen i parce que bu ñuy def élection ci bu Sénégal di football équipe nationale di football ay coupe du monde ngeen da ngay da dajale ay nit xam nga ne mais yow defoo def li ngay am na fa am na loo xalaatu joxe ay carton d'invitation. cest mm-hmm. à bi mu fi ñëwee bi leen ren lay doog am carton d'invitation lay doog am carte membre. Mm-hmm. il faut qu'on se dise la vérité. d'accord mais yow quand même tu perçois tes droits à la SODAV. man forcé man damay man sama làmmiñ laa yor damay damay dem dañ may jox sama xaalis man. <laughs> Euh. mais loolu doyul. du man sama personne moom ma amal solo. parce que lii tey jii bu fekkee nii lay continuer naa dem ba bu ma fi deeyee sax samay doom duñ fayu. d'accord Sodav yàkkamte na nit bañ dem jaale ko. Sodav yàkkamte na nit feebar bañ ne dañ koy dimbali nit ki balaa muy feebar la soxla la xaalisam. c'est ça. d'accord Sodav bi dañ ko war a auditer. dañ ko war a auditer. waaw vous demandez la Sodav. man maay jiitu Amadou Fall. Mhm. Pape Cheikh maay demande ñu auditer la Sodav. Mhm. d'accord tonton kon à l'état civil vous vous appelez Amadou Fall. papa Amadou Fall. papa Amadou Fall. waaw d'accord le duo pour le moment est-ce que mën nañu euh, xaar tey trio am keneen ñëw rax leen ki war a ñëw yan critères ngeen soxla ci moom. xaw ma ndax trio parce que ñun xamuñu parce que parce que en un certain moment. Mhm. on s'est dit que buñ ko tuddee woon Ndoumbelane wala ñu tuddee ko euh, Gaynde Ndiaye. xam nga on a on a su benn jamono ne boo jëlee sa orchestre. Mhm. nit ñëw ne maa la koy tuddal euh, gaynde njaay suba boo ko jógee mën na continuer tudd gaynde njaay mm-hmm. waaye boo ko tuddee sa turu bopp kenn du ko mën a changer ndax yow yaa fa nekk ñu on a commencé à deux du à deux di def tournée ci monde bi à deux ne niñ su suñu orchestre nañ ko tuddee Pape ak Cheikh Pape ak Cheikh waaw uh-huh. bu ñu defee Pape ak Cheikh ëllëg ak si biir uh-huh. bu fi Pape ak Cheikh nekkul beneen xanaa ñu tudd Pape ak leneen ah ñoo xam ñoom. on aime bien aussi la chanson Ndoumbelane. waaw ban passage moo la ci gën a frappé. passage Ndoumbelane. Ah ah. xam nga des fois quand da ay passage ay xam nga Sénégal. Ah li ma gën a neex si Ndoumbelane. Mm-hmm. mooy mooy ni ko nit ñi. Mm-hmm. bëggee parce que au moins ñu xam. un peu lan mooy déglu bi ñu koy déglu parce que tey jii. man amul droit sax di. Mhm. di développer ci ndumbelaan kenn ku nekk am nga noo koy noo ko jàppee. ni mhm. mu lay li mu lay fajal say say say say say fi mu fi mu lay féete moment bu ak li mu lay andil loolu rek moo am solo ci ndumbelaan mhm. mais ka dafa mel ni lu loo xas bu génne ba pare man moomatu ko. waaw xam naa ne mu mel ni doom doom du ma jur la ak yeneen doom yi. il est c'est ak man pour yeneen yeneen yi. alors euh, leneen li nga xamante ni tam bëgg nañ koo xam mooy. tey jii Pape ban genre père de famille la il est métti ou bien. man laa jël xale yi man ndax man ndax dama am métti en man moom en tout cas bëgg naa samay doom yaru. bëgg naa samay doom jàng. loolu moom bëgg naa ko. bëgguma ñu def musique. ah oui ko parce que lii nekk ci àll bi nii ma gis nii. ak ji ñi yore ñi ñànk nii musique bi. Mhm. sama doom dama ko nangu mu nekk musicien. lu tax. waaw dafa métti. non du métti musique c'est pas musique dafa métti. musique dafa metti parce que musique mënoo tee nekk te amoo yar amuloo teggin amuloo base amuloo bagage parce que musique bi bari na xeex xam nga te d'habitude benn succès bu ndaw mun na ñëw rek yóbbu la beneen côté bi su fekkee dëgëroo amuloo yar amuloo teggin mën na la yàq mën nga yàqu te musique bi nag moom yàqu ci dafa gaaw parce que milieu ngay nekk ngay nekkal ak. soo amul euh, euh, boo amul yar boo boo yóbbaale. on sent un grain de regret dans vos paroles est-ce que tey sa wàllu musique bi ngay def am nga ci des regrets. j'ai beaucoup de regrets. beaucoup beaucoup de regrets xam nga départ tu pas compris. parce que quand da ngay def musique boo xam ne yow waruloo ko def loo xam ne waruloo ko def mhm. nga xam ne waruloo ko def xam nga say parents di di di regret boobu laa ba mais heureusement parce que sama papa avant muy dem. bokk na si ñi ma ñaanal. bëgg li may def nii jàppale ko. nag mënut a ñàkk parce que mooy li ma leen wax sànq. adduna bi combat kese la. combat. waaw day am yu metti mm-hmm. am yu neex. te adduna yàlla moo ko moo ko muulee noonu. Mm-hmm. amul teggi. Mm-hmm. waaw bu neexee nga bu neexee nga sant bu méttee nga muñ. waaw. d'habitude kan mooy produire pap et Cheikh dañu am seen propre label ou bien. waaw li ci ëpp ñooy produire suñu bopp. depuis bi ñu jógee jooloo li ba léegi ñu ñuy produire suñu bopp. tonto boo ko ngeen ci artistes yi nga xamante ne ñoom it wàllum production ak li muy laaj ci wàllu ressource financière ci énergie dañ koy yëg mu métti ci ñoom est-ce que vous avez ce même problème vous. am nañu ko comme ñëpp ah. li ma lay wax rek. mais xam nga am Cheikh tey boo demee këram am na studio. lu ñu waree enregistré dañuy jóge fii rek dem këram toog enregistré. li ci des mooy mix yeeg masterisé yeeg yooyu moo ci am mais leen li des yëpp yàlla dimbale nañu. ñu ngi koy góorgóorlu di ko di ko du ko am. parce que production moo amatul. parce que boo génnee cassette kan moo koy boo ko génnee léegi boo demee ci garage yi léegi ñu jaay la ko ne la pratique euh, euh, jaay la ko. Mm-hmm. léegi nag beneen façon moo am boo génnee sa benn morceau nga dugg dugal ci. ci yeneen genre communication yu bees ci xew. Mm-hmm. nit ñi nit ñi def ko mais ñu sant yàlla ci côté boobu métti oh, ñàkk bañ a parce que mosut a yomb. Mm-hmm. mosut a yomb te du yomb. c'est ça seen moo gën a am succès depuis votre euh, euh apparition dans je crois que suñu premier album. Mm-hmm. mooy mooy mooy njiit njaak parce que xam nga bu nit ñi moment bi ñu leen njëkk a prêter attention boobu moo ëpp solo. mooy mooy mooy mooy bi def ay laaw dina xëy bés. ay yaatal ay yaatal géew mm-hmm. yooyu ay soññ mm-hmm. loolu au am na fu ñu teg parce que taxoon ñu am euh, label sur le plan international mm-hmm. réelu wër def tournée ak précisément wër monde bi ça nous a permis ñu ñu ñu xam ne mën na am nag fii Dakar Sénégal moom xam nga moom mbalax bi fii ak foofu yaa Mm-hmm. il faut cela. Mm-hmm. d' tey jii euh, am nga ay regret mais am na tamit loo xamante ni neex na la. Euh, quelque chose que vous avez vécu dans vous dans ce que vous faites c'est quoi. non bon xam naa ne comme li may wax rek des fois bu bu bu bu bu booree neex ba mu ëpp sax da ngay moytu parce que xam ne léegi mu naqari. bon mm-hmm. yanaa yanaa adduna moom a dafa ànd neex ak naqari. bari na si mooy li ma leen wax sànq sunu buñ bis bu ñu wax sunu cassette bi génn na kontaan naa lool. Mhm. temps ñu ko xaar mu génn am na léegi bokk nañu ay musiciens lañ ñun pour pour ñun moment boobu la ñuy doog a xam ne ñun ay musiciens lañ am nañu cassette yeneen ñan ñu ne ñooy Pabel Cheikh mu ngi nii. Mhm. waaw loolu bokk na si moment yoo xam ne duñu ko fàtte. Mhm. waaw. ban ban ban nga gën a bëgg di déglu kan moo lay gën a. man nag moom lay wax dara. man ay jàng laa ëpp lu may déglu. ah waay yan yan genre ay xasaayit wala ay xasaayit ay wolofal ay mbay doon man ñëpp laay déglu. Mhm. kuy wolofal rek damay dem di la déglu. Mhm. parce que man dama bëgg a cultiver sama wolof. Mhm. waaw musique bi may def man wolof man dama bëgg dégg wolof. mais cultiver sama papa dafa déggoon wolof. moo ma dimbali si yenn bagages yi. d'accord jàng nga ba ban niveau. CM2 certificat d'étude la sérieux waaw. tey jii buñ la bëggoon yóbbuwaat école di nangu. du ma demaat. lu ah, jàngi. jàng neneen di wees jàngi mooy wees. Uh-huh. waaw xam nga boo demee <laughs> toog classe ñu ne la gaz bi jeex na. Uh-huh. kilifa bu demee ba toll foofu moom jàngi jàngi day wees. Uh-huh. jàng nag du wees. waaye jàngi des fois mu wees. parce que moment yi problème yi ñëw sa bopp àdduna yooyu rek yooyu rek leçon la. l'avenir l'avenir musical sénégalaise ah l'avenir musical sénégalais pour moi nan koy présager. sera sera pas du facile. Mhm. yombul parce que affaire yi dafa changé jóge ci euh, nu ñu koy waxee léegi yëpp dafa ñëw ci affaire portable yeeg affaire comme ni ñu koy woowee noonu. Mhm. wàllum technologie. technologie. Mhm. léegi nag loolu aussi beneen dafa mel ni beneen dañoo dem ci yàlla rek. vire léegi il faut que ñu changé waat sunu. sunu sunu sunu def taxawaay ban façon communication ban façon musique ñu ngi koy jaayee foofu la ñëpp jëm moo tax musique bi léegi moom amatul kenn ku nekk mën ngaa nekk star sa kër xam nga moo tax yi dafa changé ni corona bi ñëwee rek dugg ci àdduna bi rek kenn ku nekk mu delloo la sa place noonu la la demee de dañuy daw à cent kilomètres rek freiné rek corona wàccee ñu si àll bi mu ne maa ngi nii ak yéen kenn ku nekk da pexe booy def ba mucc ginnaaw les les mesures de barrière yi mhm. waaw euh, lan mooy sa passe-temps favori boo nekkul ci répétition yi nekkoo ci wàllum woy gi qu'est-ce que vous faites man nag xaw ma fii laay nekk tëdd wala ma dem nekk ak sama gars yi suuf di naan ataaya mhm. waxtaan heure bi jotee ma dem seeti sama gars yi à part yooyu bu liggéey jotee nag ma dem sama liggéey mhm. for ci weewu bay tam que tonto Pape dafa dafa compliqué dafa metti c'est vrai ah, peut-être peut xëy na loolu defoo la ci man et puis c'est bien ñu ne ma dama metti wala moom bon xëy na dama xaw a xëy na baaxuma man xëy na loolu mais damay wax rek ne sama metti bu ko nit ñi di wax aussi dañ may delluwaat sama place rek dama war a defaraat sama bopp waruma metti mm-hmm. xam nga mais aussi nañ nañ laaj aussi si lan moo tax ma métti mhm. may kaas wala may wax yenn affaire yi dama ko war a teg si bu mhm. parce que bëgguma aussi euh, boo boo boo demee ba yàlla def la nga nekk kilifa mu def la jox lay njaboot des fois am lu ñuy jàppee métti te ne da ngaa xam parce que man dama am fu ma jaar sonn mhm. moo tax su ma méttee rek dama leen di dama koy suma njaboot boobu dama leen di moytuloo foofu mooy bañ ñu jaar foofu wan leen ne adduna bi yombul te xam nga doom neex na mais adduna yombul te boo leen am na noo noo leen koy neexalee di leen ko raay ëllëg ak sibir euh, am na lu lay fekk fi la nga tëdd ngay ngay am sa pourcentage te li pourcentage boobu yàlla na nekk lu baax waaw nag ah moom mun na nekk man loolu aussi c' est waaw euh. défaut mën na nekk défaut man ma ma ma ma jàngee ci aussi defaruwaat rek. Mhm. waaw ma jàngee ci rek dem wat mais am na lu may bañ aussi. Mhm. lu may bañ aussi dama bañ injustice. Mhm. je n'aime pas l' injustice bëgguma ko. d' waaw. bëgguma ko vraiment bëgguma injustice. waaw. quel est quel quel est le projet qu' est ce que vous envisagez de faire très prochainement. li ñuy envisager njëkk mooy. Euh, avant Covid bi dañoo nekkoon di enregistré suma album. Mhm. Covid bi ñëw na ba léegi jógee ko fi ñu ngi bu commencé yëngatu yi te yëngatu yi ñuy def yëpp place yi ñu koy defee dañ leen di wax ne bëgguñu ko fi ñëw jëlee ko fi. wala mhm. koy ñëw àndaale ko fi. Mhm. waaw loolu mooy combat parce que combat actuellement nii mooy situation bii nga xam moo am actuellement mu maladie bi. ñun ñëpp dañoo war a taxaw xeex ko en notre manière ñun ay ay ay ay porteur de voix lañu ñu ngi def ay publicité di ci wax nit ñi nit ñuy def ak di ko moytu nag di ci moytulee ñëpp di ci moytule suñu njaboot. Mm-hmm. mais li wër te mooy musicalement am na lu ñu defar ñu ko teg di xaar. Mm-hmm. am na yu ñu préparé yeneen. Ah, projet yi ñu amoon di ko waroon joué jéeg yooyu yëpp yu Covid bi ñëwee dañ ko dañ teg. Mm-hmm. kon. li li projet bi njëkk daal mooy yal na fi yàlla jëlee ñaan la yal na fi yàlla jëlee mbas mi. Mhm. lu gaaw ba ñu delluwaat suñu suñu suñu activité. tonton mhm. amoon nañu mbégte ci waxtaan bi quel est le dernier mot. maa ngi ñaanal euh, Rewmi TV vraiment c'est ça fait plaisir. Mhm. ak euh, euh, waxtaan bi parce que xam naa ne. sama sama permis aussi yéen ma mun a wax xëy na génne li sama xol. di jéggalu nag parce que comme ne nañ dama tàng. waaye dina ma yee aussi. ma ma gën a ma gën a dal. waaw may ñaan yàlla mi nga xam ne xëy na loolu défaut la nit nag day am haut et des bas. nga ñaan yàlla mu bu dee defoo défaut bu bon la yàlla ko dindi. Mhm. Ah, waaw wala mu wàññee ko. Mhm. remercier mooy waaw man uh-huh. sama nature la parce que man mënuma xam naa si suis trop émotif uh-huh. man yenn affaire yi dama koy génne sur le coup mu dem man il faut ma dégagé wu pour dem loolu uh-huh. xëy na baaxul aussi bon maa ngi ñaan xëy na li may war a dund ci àdduna yàlla mo musul ma rek mu mu mu jural ma leneen loo xam ne du loolu quoi waaw mu jural ma mu jural leen ko jural ko booleen jullit aussi nit ki lii jéem mooy ko mu accepté ne défaut lii la mm-hmm. di ñaan yàlla nag di jéem a toog di defaraat boppam parce que mm-hmm. il n'est jamais trop tard nga toogaat mm-hmm. def autocritique sa bopp ne man kat ndekete boobu lii lañ ñii kat ndekete nii nit ñi lii lañ foog ci man ma defaraat sama taxawaay bu Tonton merci beaucoup en tout cas c'était un grand plaisir ñëw fii ci Fass waxtaan ak yow on aimerait bien avoir aussi notre tonton l'autre tonton cher mais ce n'est que partie remise amis auditeurs merci d'avoir été à l'écoute depuis 16 heures ñu ngi big up tam di chaoudaf de passage yi nga xamante ñoo doon regarder di ñu seetaan ci la télé du peuple Rewmi TV merci beaucoup à notre caméraman Modou Ndiaye comme toujours il a bien assuré la chose Coucou aussi à notre consoeur du quotidien Réwmi, Anna Thiao. Encore une fois, merci beaucoup à notre invité Pape euh, Fall du groupe euh, Pape Cheikh. Amis auditeurs, dem ñëwaat du ko yàq euh, samedi prochain lay doon ak beneen star ñu toog ak moom. Merci chez vous et très bon week